jërë ngeen jëf mbokk internet ak téléspectateur yi taamu la TMS TV ñu ngi nii nag mercredi sax dugg nañ ci guddi àll ci guddi ci bésu àllarba bi euh, comme ni ngeen ko gisee nag ci guddi talaata ji ba jublu si àllarba bi euh, sëriñ bi mu ngi ci liggéey bi euh, mu ngi ci joxe li nga xamante ni moom mooy produit yi kenn dootu ko présenté muy. Euh, vite fait bi di volcan bi di jooni jooni bi ay euh, Sénégal àdduna wërngal képp ñoo ko xam ndax ku ci nekk yaa ngi koy sàkku ba boo demee ci sax euh, association internationale bi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy jëwriñ wi ñu ngi doon sàkku bërki démb ci sëriñ bi ñi nga xamante ni faju nañ ba pare ñi nga xamante ni aussi bëgg nañu faju te amuñu ay moyens ñu daal di leen jox ci li nga xamante ni moom mooy produit ay barkeel Sénégal lay doon ndax xam ngeen ni euh, produit yi Alaaji Ceerno mu Sow wi fu nekk la waaye di jóge euh, di ko commandé fu nekk la waaye di jóge euh, bëgg ci am ndax xam njëriñ bi waxuma la sax ñi koy utiliser waaye ñi nga xamante ni ñu ngi ci biti bu ñuy suuroo ci ñi ci eh, fi nga xamante mooy consultation fi ñuy consulter garab yi da ngay gis ñëpp eh, seeni jinne commencé déclencher da ngay gis ku ci nekk feebar bi nga amoon commencé ah, rocceeku ndax njëriñ bi ak dayo bi ak dimension bi nga xamante ni eh, produit yi nag daal dina koy am nga xamante ni képp ku feebar képp ku ame ay problème képp ku am ay jinne soo xasee ba laal produit euh, da ngay daal di tàggoo ak moom mu ngi nii nag alaaji Thierno Moule Sow eh, ginnaaw produit yi nga xamante ni àdduna wërngal képp ku nekk xam na euh, njëriñ bi ku nekk euh, gis na ko tey ñu dem ba nit ñi sax di sàkku muy taalibe yi li nga xamante ni moom mooy produit ñi am ñi mu faj nañ ba pare ñi nga xamante ni fajooguñu ñi nga xamante ni amuñu ay moyens ñi nga xamante ni tey bu ñu sañoon am ci produit yi ndax xam njëriñ bi ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la jox sa wàccuwaay. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin auzu billahi min ashaytaani rajim wala xawla wala quwwata illa billahi azim gannaaw ba ñu suñu borom ñoo ngi julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokku jullit yi di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu ñëpp ñu ñu seetaan à travers TMS TV ñoo ngi lay nuyu soxna Anta macha allah di nuyu Aliou di nuyu Alseni waaw macha allah di nuyu ñëpp ñu ñu seetaan pare nañ ci produit yi. Mm, macha allah ndax na xam ngeen talaata dañuy def consultation suñu paree ñu daal di nag defar garab yi pour patient yi ñu war a jox garab yi macha allah pare nañ ci produit yi Euh, gis ngeen tëju nañ ba pare def liñ ci war a def lépp macha allah baatin bi mooy vite fait bi gis nga ko moo nekk noonu butel bi moom la ñuy joxe fii gars yi di ko sangoo matin soir macha allah vite fait bi ñuy naan bi aussi moo nekk ne butel bi mooy moom la ñuy jox gars yi ñu koy naan aussi trois fois par jour lépp lu nekk ci biiru nit ki moo xam liggéey la rab la moo xam tooke la lépp lu bon daal ci kattanu suñu borom. Euh, bu ko nit ki utiliser te ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax partout dans le monde macha allah. Euh, ñoo ngi sant bu baax gis ngeen tamit yi nekk ci sachet yi aussi euh, macha allah am na yu buy dem Maroc macha allah am na tamit bi nga xamante ne mooy dem Allemagne euh, gis ngeen cuuraay yi tamit moo ngi noonu macha allah produit lay am solo yi nga xamante ne vraiment nit ñi ñoo ngi ci gis seen bopp bu baax a baax ci wàllu rab ci wàllu jinne ci wàllu cat làmmiñ ci ay liggéey ci ay def-def ak yooyu. macha allah lépp lu kale woon nit ki vraiment boo ko utiliser euh, da nga ciy gis jàmm bu baax macha allah ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax léegi nag euh, macha allah gaa yaa ngi doon sàkku bu baax pour ñu dimbali leen ñi amul moyen pour faju pour ñu macha allah. ñu mën a jënd ci produit yi ba barki Dembo Ndiaye gis ngeen suma taalibe yi association Thierno Moule Sow famille Daaru Laahi national ñëw def ziar indi kado bi fii macha allah indil cadeau madame Sow ak prince indi xaalis bu bëri vraiment presque un million cinq cent boo ko boolee ak waa international macha allah day nekk presque trois million euh, cinquante mille vraiment euh, ñu indi fii xaalis bu bëri vraiment pour kado anniversaire vraiment ñu ñu waxtaan. ci astation bi nu muy doxee ak yooyu ñu ñu xamal ma ne vraiment macha allah am na ay taalibe yi bëgg ci produit yi am na ñu bëri nga xamante ne bëgg nañ ci produit yi macha allah amuñu moyen euh, ñii faju nañ ba wër ñii aussi dañu bëgg faju waaye amuñu amuñu moyen pour faju ñii tamit faju nañ ba wër mais dañuy bëgg tout temps di ngannaayu produit bi ndax produit bi dafa am solo li nga xamante ne vraiment daf lay aar daf lay musal euh, daf lay dimbali aussi. Euh, bu bu lépp bu amee lu nekk ci yaram bi boo ko utiliser daf lay daf lay dimbali loolu tàggoo ak loolu maanaam di di tàggoo ak loolu moom defe naa ne baaxul moo waral nag macha allah taalibe yi sàkku ne dañu buggoon vraiment mm, ñu ñu xool ni ñu leen di dimbalee. pour ñu mun a am ci produit ñu waxtaan ci ak ah, jëwriñ Alseyni ak jëwriñ Xarjata euh, ah, kii Xadi Xadi Xadi Ba macha allah ak jëwriñ euh, Galaay Sey macha allah ma ne leen bu soobee suñu borom dinaa xool nu ma leen dimbalee pour taalibe yi mën ci am ci kàttan suñu borom xam naa ne du yàgg fan yi néew incha allah dinañ tàmbaliwaat euh, quelque temps rek pour def benn promotion bu ndaw rek. pour dimbali ñi amul ñi euh, pour produit bi incha allah xam naa bientôt rek dinañ ci ñëw du yàgg ci fan yi néew rek macha allah produit bi moom moo ngi noonu njariñ kese la parce que xam ngeen luy dëmm ak jinne xam ngeen dëmm yi macha allah ay nit la ñuy doon ba pare nekk ay jullit euh, ñii dañuy jàng alxuraan ba ne ar macha allah loo jàng jàng jàng alxuraan ñoom dañuy jàng alxuraan ko yow. macha allah bu nekkee dangaa jël alxuraan bi nga léemoo ko ñoom it dañuy léemoo alxuraan waaye dafa am yi nga xamante ne ñoom seen mbañeel la arrangé wu leen mooy garab yi may defar nii mooy ñaan yi may defar ni mu mu nekk kat yi jinne aussi tamit am na ñi nga xamante ne ay xaafisul xuraan lañu ay borom xam-xam lañu aussi ñoom it dañuy dañuy jàng alxuraan euh, boo leen jàngalee alxuraan ñu jàngal la alxuraan euh, buñ la toppee aussi euh, dañ lay sonal waaye yii seen mbañeel la yi nga xamante ne vraiment. nit ñi min nañ ko ci ñun ñi ñaa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax ay produits la yi nga xamante ne vraiment safara la maanaam li ñu wax xam nga jinne safara maanaam ñoom seen bopp ci safara la leen suñu borom bindee léegi produits yi aussi comme ni ma koy waxee tout le temps maanaam safara buy lakk safara la kon nag produit yi macha allah defe naa ne moo ngi noonu euh, partout dans le monde même ba ma demee Dubaay sax ñi ñaa ngi ma koy laajte bu baax a baax euh, produit cuuraay yeeg vite fait yeeg yooyu ma ne leen macha allah yëpp a ngi fi am na ñuy def ay commande tamit kon nag moo ngi noonu parce que ñu bëri dañu daan woo nag ne ñu sëriñ bi ba xam tàmbale goo jaay ma ne leen noonu jaayagoo ma mais xam naa du ñàkk fan yi néew rek dinañ ubbi benn benn benn ngir taalibe yi nag ngir suma taalibe yi moo tax ñu def loolu ubbi benn benn. benn petit promotion rek pour jaay ja am ñu ñu dimbalee ci produit yi macha allah di sant bu baax di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm macha allah defe naa ne ñi mbooloo maa ngi ci biti di xaar euh, garab yi euh, defe naa ne produit moom euh, ñàkk nekk ak produit wóorul ndax kii boo nekk ak moom daf lay dimbali ndax jamono ji léegi dafa doy waar maanaam dëmmay rab yeeg yooyu dañu lay sonal saa su ne mun nañ la attaqué su nekkee ne macha allah danga ànd ak yi dana la jàppale bu baax a baax kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Anta vraiment macha allah. waaw xam nga bu ñu ubbee benn benn benn benn promotion euh, di maanaam ñi bëggoon jënd ñi ñu doon woo bëgg jënd ñi ñu bëggoon faju aussi amuñu moyen mun nañ ci profito tamit. ñu ñaa di ci am produit yi parce que duñ ko ubbi carrément suñu ko ubbee quelque temps nag ñu arrêté jaay bi ndax jaay bi moom duñ koy continuer di ko jaay jaay jaay euh, waaw noonu la parce que duñu ko continuer di jaay parce que dafa am ñi nga xamante ne aussi dañ ciy rax bokkuñu si dañuy ñëw jënd produit aussi euh, di si profito tamit moo tax bu euh, buñ ko ubbee quelque temps rek dañ koy tëjaat continuer ku bëgg a faju ku bëgg a produit yi ñëw mu muy wàllu t-shirt yi tamit moom it dinañ ko dinañ ko ubbiwaale macha allah ak porte-clés ak ak ak maanaam bagage yi rek ak ak bàggee moom ba tey macha allah ñi ñaa ngi koy commandé bu baax a baax macha allah kon nag euh, xam naa ne bientôt rek dinañ ubbi benn benn benn buntu rek pour am ñu ñu ñu ci jàppale bu ko defee ñu tëjaat buntu bi continuer comme d'habitude macha allah am ngeen ne ñun mm, dañuy def consultation ñu consulter nit ki xool lu nekk ci moom. Euh, ba xam li nekk ci moom ñu faj ko defal ko ay traitement topp ko parce que am na ñi nga xamante ne euh, hygiène la ñu am na ñi nga xamante ne feebar yi dañuy yàgg ci ñoom nekk ci ñoom ay ata at ay ñaar fukki at ñii feebar yi dañuy dañuy dem ba gañe leen ba mën leen su ko defee yow boo ñëwee man ma gis loolu vraiment damay topp dimbali la jàppale la topp la di la traité di la traité ba nga am jàmm boo xoolee ñu bari ñi nga xamante ne euh, docteur xool na gisul ci ñoom dara docteur xool na mënul ci ñoom dara dem nañ si sëriñ bu ne dem nañ faju fu ne amuñu solution bu ñu xasee ba jëflante ak ñun bu ñu leen toppee vraiment di leen defal traitement dañuy dem ba am jàmm gis seen bopp parce que xam nga garab yi dafa efficace te moo tax su ma faj dafa wóor maanaam dama lay topp ba nga am jàmm macha allah waaw. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ak internautes yu TMS TV kon nag yéen ko déggandoo ci barke nag ñi nga xamante nii ñoom ñooy taalibe yi sëriñ bi dina ubbi euh, benn moment de promotion euh, daa di joxe euh, jaay li nga xamante ni moom mooy produit produit yi nag comme ni ko sëriñ bi waxee comme ni ko kilifa gi waxee comme ni ko xalifa bi waxee ñàkk koo am wóorul moo tax nag ñi nga xam mooy mule mule yi ñu sàkku nag xam nga ko xam sëriñ bi xam ne dafa fonk doomu aadama waaye rawatina taalibe émotion bi képp ki nga xamante ni amee nga ay problème waxuma la boo ko euh, boo ko gisee sax waaye boo ko laalee rek ah, saafaraw ci li nga xamante ni moom mooy say problème te tuba euh, te li ñuy wax ne nit ki lépp lu mu mën a am preuve da ci baax te ñun ñi ay preuve lañu gis nañu ne ñi nga xamante ni yàgg nañu am ay problème waaye ba ñu egsee fii ci alaaj cenn mu lee saw saafara na lépp loolu nag mayu yàlla la yàlla moom moo ko may baatin bi euh, kon nag ñu nit ñi ak mbooloo bi ñëpp ak patient yi ñu ngi toog ci biti di xaar li nga xamante xamante ni moom mooy produit yi kon nag lii lañ leen doon di digtal ci produit yi nga xamante ni ce sont des produits miraculeux nga xamante ni dimension bi kenn dootu ko daal di naatable ci Sénégal waaye mun nañu wax nag ci àdduna wërngal këpp ngeen teg foofu seen baaxam ba ci kanam incha allah.